yëkkati na an ku wayoon réew mee ko neex turbine yéen a kaay ne ko moom laay wër jëlal sees nga toog janoog sénégalais yi teex teex may reete xam ne la nga wayoon daal mooy dëgg réew mee ko neex te day gën a neex fii ñu jëm ci présidentielle bi yéen a kaay man fi ne sàll ngaari lam toora bur gede bu boo nag waajal bu baax a baax ndax élection yi gaa yaa ngi ñëw ñen ñooy ñëw yéen a kaay bi naan man waa fi fanweer ak juróom ci candidat lan yoo xam ne ñaabar ñaabari fas yéene dal ci kaw président Macky Sall mooy seen sabab sàll ngaari waajal ma ni la gaa yaa ngi ñëw dal seen kaw xale am fit jëm ciy candidat taxawal nañu fi te sabab gi moom moo di daal di defub say takku nag ba mel ni sayu sayub naanaa naan sàll yaa ngi ñuy xool fii moom démocratie nga fi doxal lu ko mooy làmbaay ñaaw sa kaw rek ñu fas yéene soobu ci combat yoo xam ne maar day taali ba ca njëkk ci xeex bi moom moo di tabbinuk Sénat nga xam ne sàll def na ko te mbir mi nag jaarul yoon vox populi naan maan fanweeru juróom candidat yi fit nag la ñu daal di woddoo rangoo ko fas yéene soobu président Macky Sall weñ loxoom naan kon élection yi na ñëpp bokk bu kenn manqué opposition bi nag fas yéene taxawal ab force violence politique bu metti boo xam ne nar na yéen a i tegal président Macky Sall lu ti waay taxawu bokkul dàq nañ ko acca PDS bokku ca dàq nañ ko acca Cheikh Tidiane Dièye ne fanweer ak juróom ci candidat ci élection présidentielle yi ñoo taxawal fit gii direct ci news mel ni ku naan maan présidentielle mani la gonee koy dëkk waaye ma nga koy daan coow li coow li moom moo di weñ wa ca pëndub teen ba coow li nekkatul kuy bokk ku dul bokk waaye coow li dëgg-dëgg mooy ndax élection présidentielle dina am ci mim réew yéeni kaay bi naan fan yi yëpp ku noppi gar mi day xam nga ne wàlluk dàq sooy ñu ngi koy laam-laamee di ko ruumandaat ndànk ci réew mi opposition bi wax na ci gars yi ne teg tey jii nag nguur gi moo ci wax jaaree ko ci Souleymane Jules Diop tey nag laaj daal di samp ci la wolof daan tàmm wax na naar bu ndaw bi lu mu wax ci berkell bi la ko déggee mbaadalul Souleymane Jules Diop yéeni kaay bi naan maan lu ne am na ci présidentielle ba mu dooree 1963 ak tey ci réew mi fukk ak ñaar ñuy tëgg élection diggante 63 ak 68 xam ngeen ni lu bari am na fi 88 93 opposant bu mag ba wàdd jàppoon nañ ko fa ay bakkan yu bari rod na na ci réew mi mësta tax ñu dàq élection ci réew mi tey jii bëgg a jël coowal Ousmane Sonko bii bëgg ko defub lay dàq élection yéene kaay bi naan man ndax xel mën na koo nangu ndax nag ñi nga xam ne dañuy sabab dàq gi di ko ruuma ndaat ak di ko wax ci suuf seenug yéene du Amadou Ba mii daal di rucciku ci élection présidentielle yi mbaa ñu rocci ko ci réew mi quotidien naan maan moom Souleymane Jules Diop mi wax ci dàq bi moom it di dinay xam ne ni bu mbir yi continuer nii Benno Bokk Yaakaar jël lay am mëq suuf 24 heures yéene kaay naan moom Jules ci boppam moo wóoluwul Amadou ba nee na nag Amadou wanul sénégalais yi ne bëgg na réew mi fi mu tool nii waa bennoo am na nu njàqare ci moom ma naan kon bari nay qualité waaye lim ñu wan ci boppam moo doyul te lii bu wéyee opposition bi ma ne la ku ngémbu ngémbul dëgër mën ngaa jël réew mi les fa yéene naan man moom Souleymane Jules Diop ma nga naan Amadou Ba dafa war a dem ci nit ñi wax ak ñoom la ñuy ruumandaat ci biir bennoo bokk yaakaar mooy mbir mi bu wéyee nii ñàkk fa yàlla aw mooy am coow li mooy Amadou Ba ci boppam moo dalalul xel yi le point ak ci naan man bés bu ñu dàqee élection présidentielle yi mooy kan moo cey gis boppam moom Sall Ngaari 2024 nee na bàyyi bàyyi day bàyyi Souleymane Jules Diop ne pareeguñu ñoom Maodo Malick Mbaye naan koon dialogue rek lu ko mooy làmbaay ñaaw fit daal di taxaw taxaw Sénégal ne cell ci coow li réew mi kenn déggu ko Bougane Gueye Dany ak Malick Gakou naan ñoom élection présidentielle rek dàq élection moom duñ ko nangu ci mim réew las yéen kaay naan man moo ne day tultul yaa ngi bëri ci amadu Ba ba maar day taali Abdoulaye Bibi Balde ma nga naan Ba ci boppam dalalul xel yi point actu naan man moo ne yaa ngi koy wutal ay parrainage ba fi mu toll nii Salif Sow DG ASP daal dinay renforcer Benno Bokk Yaakaar ci Ndakaaru jébbale ay financement soxna yi diggante Ndakaaru ak bi collecté it ay parrainage ngir Amadou Ba taxaw ngir Amadou Ba am ndam ci réew mi Tribune yéen kaay naan man Cheikh Tribune yéen kaay naan man Cheikh Diouf directeur des infrastructures aéroportières daal dinay jébbale ñetti junni téeméer ak ñaar fukk ak benn ci parrainage Amadou Ba ca Sandiara Birima Ndiaye daal di soobu ci élection yu Amadou Ba yi diggante ambulance ak wàllukaay ngir soxna yi l'évidence naan Amadou noppalul doo am ndam waaye ci biir bennoo am na ñoo xam ni ba tey gëm na ni élection yi day am taña ngay jàppale Amadou Ba Maimouna Sissoko Khouma daal di koy baleel diggante Fatick Nioro ak Kédougou moom jiital mouvement national bu enseignant républicain yi daal di mobiliser jàngalekat yi ci ndaje ki panel yoo xam ne am na ci diwaanu Fatick googee gannaaw bi dem na ñooro gannaaw bi it ñu daal di dem ca Kédougou fexe ba boole doomu gox yi ñu doon benn njiital Dakar dem dikk di meeru Kédougou Ousmane Sylla teew fa Aïssatou Aye Ndiaye mi nga xam ne moom lañ dénk kilifa yi teew fa xiiroo ngaayoo daal di dakk ca le gox Mamadou Saliou Sow ak njiital Dakar dem di Ousmane Sylla joxante fa loxo coow li jeex benn yéene am moom moo di fal Amadou Ba laas yéene kaay naan Amadou man xanaa déggoo ni ña ngi koy tuy tuy moom Amadou Ba te ci seen biir coalition lay daal di jógee turbine yéene kaay naan kon opposition bi ci boppam ngembul nañ ko laas naan waa biir coalition mit amunu yaakaar ci moom yoor yoor yéene kaay naan man en tout cas magistrat yi fi mu toll nii ña ngay ñaxtu ci suuf ñoom Le Soleil naan kon sàll ngaari di ñaxtu la nga xam ne Israël ma ngi koy teg Palestine te di xam le ni nag solution war na caa mën a am l'observateur naan kon boobu réew mi metti na fi mu toll nii xaalis ci boppam moo amatul ci gafaga trésor public ci boppam xaalis nekkatu fa njaaxle daal dinay juddu ci réew mi Momar Ndaw ne ñun ñun dénkoon ñu saafara coowal location ci boppam ñoo mujjee am jafe-jafe amuñu personnel amuñu bureau libération yéene kaay naan kon waxtu woowu Ousmane Sonko nekk ci guddi gu bër setagul fukki fan ak juróom-ñaar diggante CEDEAO ak war koo yeewi wàlla kos naan bu dara sedd Sonko candidat lay doon du yomb turbine yéene kaay naan maan Baba Diallo njiital ASER daal dinay xamle ni boobu ñu ngi ci taal lamp gi ci Sénégal gi yëpp fii vingt 2025 lu toll ci ñaari téeméer juróom fukk ak juróom benn ci gox daañu leen leeral juróom ñeen fukk ak juróom ñett ciy dëkk dëkkaan ay mini central wal faa taxaw lu toll ci téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ci ay réseau ñu daal di koy raccordé lu toll ci ñaari téeméer ci kilomètre ci wàllu courant ñu daal di koy taxawal diggante 2018 ak tey ASER fas yéene dëkk dëkkaat yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réewum Sénégal courant di fa te dootul fayet métti loolee mën a génnee sénégalais yi ci lëndëm tribune yéen a kaay naan maan njàqare mënta raw sénégal li muy dund ci màngaan gi moom sénégal nag léegi moom moo di yoon wi nga xam ne xale yi fa la jaaree di màngaan bàyyi nañ libi bàyyi Maroc léegi sénégal ci boppam la gaal yi tëmbee di dem di màngaani yéen a kaay dee média bi naan maan fi mu ne deuil national moom la askan wi di sàkku président Macky Sall amal ko ci réew mi ndax faatu gi daal dinay bari ba maar day taale libération yéen kaay na ko déet barki déem boo njaay gaal gi nga xam ni bàyyeekoo na bar ñi daal di suux fii ci gàddaay ba tey yaa ngi tàmbale tàmbalee teer ñett ci ay néew daal dina ñuy wàcc fii ci waaxu ndakaaru yi ñaari daal na ñuy feeñ ci jàmmalaay benn bi daal dinay feeñ ci déeni géej terewul xale a ngi dem ndax marin bi ci ayu bés bii dong ñeenti téeméer ak juróom-ñett ciy màngaankat yu nekkoon ci gaal daal di leen di wàññi ñu daal di sowewu dem seeni kër ak lu mu metti metti xale yi yegg barsa wala ñàkk seen bakkan gënal na leen toog ci réew mi laaj bañ war a samp dëgg-dëgg mooy luy problème bi ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm